kontaan nañ lool te yeex nañ am staff mel nii wax dëgg yàlla kontaan nañ lool Cambérène dañu siggiwaat xoolaat suñu bopp xam ni nañu xoolaat xam ni ñu ngi ànd ay liggéeykat liggéeykat nag mooy ki nga xamante ni muy taw muy naaj mi ngi si kaw ñii rëccewuñu liñ leen tegee si dëkk bi barki laa ilaaha illallaah toog naa dëmb ak si ñenn si njabootu Rasulullaay ñu leen di gërëm kon Cambérène nañu yeewwaat defaraa sunu bopp defaraat sunu xel te nangu ndogal te xam ne ñii bu leen buñ leen buñ leen jàppale dinañ dem à cent pour cent si leen bëgg li tax ma jël parole nag këf ka maa ngi jégalu bu baax ndaxte xol moo sedd wallaay xol moo sedd maa ngi leen di firndeel ni staff bi nga xamante ne moom la ñu dénk ñu koy liggéey guddi ak bëccëg barki laa ilaaha illa rëccu wuñu leen si doon bokkee sama baat sa kaw bu ñu doon fay ñaar dërëm wala zéro franc on est fier de vous monsieur le maire rëccëwuñu barki roowul xut si borom jamono yàlla na la maam Seydi gën a taxaw yàlla na la maam Seydi gën a taxaw ndax lii musul am si Cambérène bu fekkee ne mus na fi am rek nag nu wax ni mus na fi am ba ñu juddoo ba léegi lii mus ñu ko gis wax ji lu muy bari bari bari lii xolu mbégte la rek te yàlla dafa ni fu xol yi bëggee yiw rek moo fay wàcc kon lii alhamdulilahi rabi alamina ndax jëmbat gar am na lu muy signifié li muy signifié yàlla na law dal seen kaw di gërëmaat tonton Mamour bu baax a baax ndax vraiment mi ngi sa ginnaaw di la taxaw di coordonné nu mu waree xeebul kenn xeebul xalaatu kenn noo mën a ñëw dina la wax ni la defal lii bàyyi lii defal lii bàyyi lii te ku ko topp xam na Cambérène xam na situation Cambérène te mi ngi koy dox guddi ak bëccëg ku mer mun la bul mer ku jàppale la bul la bul jàppale jàppal lii ndax lan lii mooy lii defar dëkk bi dëkk Roowalaay saa Roowalaay saa yonente la Roowalaay saa yonente la ndax Baay Laay alayhi wa salaam mooy baayam surtout yaa Rasuulalaay ngi nii taxaw kon mbooloo boo gis dina am li Liba Samba jërë ngeen jëf jën ngeen jëf Cambérène lii rek la laalaay Cambérène lii rek la nañu booloo doon benn liggéeyal maam Seydi ndax dëkk dëkk sa dëkku maam bi lu fu waaye liggéey doo ko pert barki laa ilaaha illallaah wóoruma jël parole nag mais maa ngi jégalu bu baax a baax jërë ngeen jëf laay moo tax. waaw sala salaamaaleykum mbooloo mi donc dañuy euh, tëjee communication bi tey jii fii ci Cambérène 2 ndax xam ngeen ni maire avec la commune tey dañoo amoon activité investissement humain fële ca quartier Kër gu mag ñu juge fa donc lu mel nii la doon teewee maanaam pour setal ñu juge fa mu ñëw fii tey Cambérène 2 choisir ale bii nga xam ne xalif général. xalifatul muslimin nga xam ne mu ngi dëkk fii ci ginnaaw di dégg ñu ngi koy ziar fii la dëkk ñu ni dañ koy dañ koy reboiser kon dañuy démarrer suñu communication dañuy njëkk a oo ki nga xam ne tey jii au niveau de la mairie moom mooy le président de la commission environnement muy Libaas mu ubbi kàddu yi jërë ngeen jëf donc ayca si journée bi sa impression waaw salaamaaleykum Laye Mourou Matar ñu ngi nuyu di jaar ñëpp di jiital suñu nuyoo suñu kilifa tey si jataay bi monsieur le maire ñoo ngi lay nuyu di la jaajëfal ndax li ko waral mooy commune bi am na 19 commission mais président commission bu nekk da ko dooleel. activité bu ñuy mën a def nga naan le président na doxal loolu ñu ngi la ciy remercier bu baax a baax du ma monopoliser la parole parce que damay remercier suñu partenaires. ku ci mel ni la docteur Gora Niang jàppale nañ ci ba dem ba léegi ñooñu coordonné à partir du Mirail Vert fu mu foo xam ne mën na fa am plante woote na ba gis nañ fii seen agent yeeg yëpp côté boobu ñu ngi ko ciy gërëm di ko sant di gërëm di sant population Cambérène parce que dëkk Cambérène lenn la rek la ti bu def sa gémmiñ la ku def defaloo kenn sa bopp nga defal ñun slogan boobu la ñu am ci la nekk maa ngi sant di gërëm ñëpp di gërëm waa Cambérène jërë ngeen jëf merci beaucoup. waaw jërëjëf Libaas Libaas Guèye moom mooy président commission euh, environnement gis nañ taxawaayam di fàttali ni rek tey Mbengeen maire Mbengeen la ñaari jaamam dañ ko wër muy docteur Gora Niang directeur Gora Niang bi nga xam ne moo ngi ministère de l' environnement am na aussi tamit monsieur Dieng bi nga xam ni service à la communauté nekk université ñëw moom it participer donc kon ñaari jaamam dañ ko wër. kon loolu ñu ngi koy fàttali waaw ba de waaw waaw mi ngi noonu kon nag dañuy day ñaari docteur ti wër ko kon kon mi ngi noonu kon dañuy oo suñu papa Thierno Sow bi nga xam ne moo ne ci quartier bi donc di ñu profito di gërëm ñi ne ci quartier bi ak ñi ñu fekk si yëpp jeunes yëpp ñëpp mënuñu wax dañoo jël lépp tënk ko jox ko papa Thierno Sow mu ñëw wax jërëjëf papa. bisimilah laay maxtaar ñoo ngi nuyoo di ziar nag xalifa bi. ñu ngi ziar xalifa bu baax di ko jox wàccu waayam di jox sëtam bi fi ne monsieur le maire kontaan nañu kontaan nañu Cambérène bu bees la ñu waxoon ñoo ngi koy gis Cambérène bu bees xale yi ñoo ngi liggéey ñi amul am na ñi nga xam ne ci yow la ñu commencé am bulletin de salaire waaw nit bu waree def dara defal ko ay nit gis ko ko ko defal da ngay sant yàlla ñoo ngi lay ñaanal fi nga teg sa tànk foofu la jërëjëf wa salaam waaw jërëjëf Pape Thierno si efficacité bi di fàttali aussi que fële lañ jógee waa Cambérène mu ñor boo ñu ñor di sang bi suñu sang laa laay ànd ak sama xarit Libaas sàmm ñu ngi ci ànd ak maire pour ñëw fii ci reboisement bi fële la ñu jógee léegi dañuy jël kàddu gi jox ko docteur Dieng bi nga xam ne dafa ne université ñëw participer si journée bi nekk service à communauté docteur. Euh, merci beaucoup damay tàmbali di sant euh, di wax ni sentiment de fierté moom ma animé teew si journée bi nga xam ne dañ ko dédié à la revitalisation de la commune de Cambérène mu nekk lu am solo euh, di remercier monsieur le maire si invitation bi ak sama collègue bi docteur Matar Matar Diop man li may wax ce sera un petit cri de cœur parce que tey boo xoolee contexte mondial fi ñu toll avec le réchauffement climatique ñëpp xam nañ ko parmi ces solutions bokk na ci muy lan faire tout pour que nos villes soient vertes te tey monsieur le maire à travers cette action et son équipe et avec ses partenaires notamment les autorités de du ministère de l'environnement docteur Niang qui est là moi je les félicite d'abord parce que aujourd'hui la revitalisation de nos villes est une nécessité pour le maintien de la biodiversité en milieu urbain et c'est important Surtout Dakar fait partie des villes les plus polluées en Afrique. Et aujourd'hui, les plantes constituent une réelle alternative par leur capacité d'absorption des gaz à effet de serre. C'est-à-dire, si vous laboratoire à travers le monde, les résultats scientifiques ont montré qu'une plante adulte, Boumak, peut absorber jusqu'à 360 kg de CO2 par an. Imaginez 100, 200, 300 000 espèces. C'est des tonnes, des milliers de CO2 qui seront absorbées par ces plantes. Voyez l'importance. Sans compter la pollution sonore. Cambérène est ceinturé par le prolongement de la VDN 3, sans compter les autres axes secondaires. Donc il y a des centaines de véhicules qui passent ici chaque jour. Et ces polluants à moyen, à court, moyen et long terme sont nocifs pour la santé humaine. Et parmi les solutions durables, c'est l'absorption de ces pentes. Donc ça, c'est une action noble. Pour moi, qu'il faut démultiplier dans les autres communes du Sénégal pour que Sénégal vert puisse être une réalité. boo xam ne nit ñi dañ ko war te gis nga ce qui li xew si suufi taw bi mu ngi taw ñëpp a fi jëmbat loolu moi j'ai été par un sentiment de fierté ça montre que leen intéressé mooy le service à la communauté et ça c'est important tey boo nekkee maire tu dois tout faire pour améliorer le cadre de vie de tes populations te tey moom à travers cette action wane wane na ko et le choix des espèces aussi mu nekk espèces yoo xam ne elles sont capables de vivre sur un sol pauvre loolu a été mis en avant pour pour que l'année prochaine bu ñuy ñëw qu'on ait zéro mortalité te bëgg naa l'année prochaine incha allah bu ñuy ñëw pour regarnir kër gu nekk ne man mon challenge c'est de tout faire pour que devant sama kër benn garab du dee et les américains di wax it nous pouvons le faire parce que c'est une question de volonté et tey kii ñëpp xam nañ importance de la plante dans le maintien dans la vie quotidienne des populations te defe naa ne tey boo xoolee engouement bi am tout autour borom kër gu nekk jël engagement loolu dafay wane le rôle important aussi du staff pour pouvoir consolider les populations, leur montrer aussi l'importance de ce qu'on est en train de faire sur le plan sanitaire, mais aussi dans l'amélioration du cadre de vie. Et fi may tëjee aussi si wàllu diine def naa bokk na si ñett yi nga xamante ni suñu boo mel boo ko defee xéwal bi dina la fekk ba sa bàmmeel bokk na si muy jëmbat garab mu sax bés nit ñëw di ko di si féexlu yiw bi da fekk ba sa bàmmeel donc loo tax na ñu war a fonk li mu def tey di ñaan nag à travers cette action ñu médiatiser ko que toutes les autres pour que Sénégal vert soit une réalité je vous ah jërë jërëjëf jërëjëf xam nga universitaire moom buñ ñu ko amee dañuy taataan ci ci bi di wax monsieur Dieng avant waaw may nañu lu bari ci capacité d'absorption yi donc euh, monsieur Niang balaa moo jël parole di wax maire mi ngi fi ànd ak tey équipe am staff bi yëpp ñu ngi fi au-delà du staff équipe FERA bi nga xam ne tey ñu ngi fi ñoom nga xam ne depuis ce matin ñoo ngi jug pratiquement fu mu war a dem yëpp jiitu nañ ko fa pour liggéey liggéey bi. gannaaw loolu aussi itam population yi nga xam ne ñaari karte yi mu ciblé ñëpp ñu ngi ko topp plus staffam bu mu ne staffam nag ku xool di nga xam kon dañuy jël kàddu gi ñu jox ko directeur monsieur gore Niang mi nga xam ne suñu mbokk la waa Cambérène la waa Malika la Laye Makhtar moom la ñuy jox kàddu gi mu jël kenn. jërëjëf Mbengue jërëjëf euh, Laye Makhtar Laye Madine euh, xam naa ne fii moom ah bu mu fi jëlee kàddu daal dama ko fee war a jël rek. Euh, ndax Cambérène yaakaar naa ne lu fi yendu fanaani Malick fii lu fi yendu fanaani Malick euh, ndax euh, laay-laay mii donc di seet ci Roowulaahi Isa di seet ci Baylaahi donc ki woote woon fii ci Ndakaaru ah, ne woon na sama woote wi nag mu neex ak naqar nit ñi dinañ ñëw te ci sama yaay laa ko déggee Ndey Kumba Siis Euh, donc ji mag Yacoumba saar mu Baye Mbaye Thiaw euh, donc bu may wax aussi man naa fee wax ndax ndey ma reem mu euh, njiin ja donc di yaay ci ñoom papa ja ah donc Jibi caw mi nekk fii sëñ Mansour Thiaw ñooñ seen di jaay leen xelaa ah donc fii mën naa ne fi lan màggee ah, ñoom Baye Mbaye Thiaw la ñuy maaseel nag ñun moom la ñuy ah, ñoom Cheikh Mbacke ñi fi nekk Seyna Laay ñu ngi jël nuyoo bi Euh, monsieur le maire nga àggale na ko ci xalifatul na muslimina euh, Mamadou Laye Doudou di ko ñaanal fan wa gudd ak wér gi yaram ba yenn bii nga xam ni moom la taxaw pour doxal mission maamam mu sedd guyu ci moom oyof ci moom euh, donc ñu ngi leen di ñaanal fii nag moom dëkk bii ku fi ñëw xam ne dëkku diine la Seydina Issa Ruwulaahi ku ko xam xam ne moom li naan urbanisme ak defe naa ne garab moom ak wax fi laa wëy di nga ko ci tudd kon kooku nga xamoon amoon na vision boobu ah, ban ne woon Dakar ville verte. vision du Cap Vert li tax ñu tuddee woon ko Cap Vert am na lu tax. Dakar bu ne Cap Vert garab yaa taxoon waaye nag bu ñuy seetaan ba mu nekk Cap Béton léegi moom dootul baaxati nan fexe ba mu ñëwaat Cap Vert gam amoon garab yi tam mën naa nekk. ah donc comme ni ma ko waxee woon rek ah, nee na daal tànk bi yonent bi fu mu jaar nit ñi dinañ ko biiw ni weñ di biiwee jën wu nëb. te koy gis a ah, ñun nag Malika am na lu nu waxoon de yéen de yéen a ñu bëgg a waaye nag bu ngeen séddu ah ñëpp dinañ gedd seenu cër daa mel ni ñu ngi koy gis de xam nga lu tax xool leen dimanche Malika plage yu Malika boobu ab wuyu leen eh, am na lu tax plage yu Malika lu mat mille personne dinañ fa ñëw kenn xamul lu leen fa ma ni leen foofu nag ci échangeur bi mooy bu xeefulu Malika échangeur u Malika boobu mooy cosaan la. moo tax li indi nit ñi xamu leen ko ah ñun de ban nu doon wax xam nga ñoo doon xeex pour eh, ñu jox nu foofu ah, ban koy xeexee ba pare kenn lànk kaara nag ni du dafa dem parce que fële daa sori maa koy nit li ñu fa ñëw mën leen Malika extension ginnaaw yàlla nag buñ fu dëkkee Serigne Ablaye la ñun ñi ñoo xëyoon boobu ay 92 ay xale la noonu ku ne nag di nga jaar ci xale mm-hmm. waa Oyo Forêt ñëw fi de ba jëmbal yu gar ñu buddi lépp ni ah ab Ablaye de boobu defe naan am na oto bu ñu naan ko idée dees ñu naan bu amee benn bouton boo ko bësee day naaw doon na daa wax ba nekkee xale de mu ñëw fa <laughs> mu nit ñi daal sant mu leen ko waaye lu def andi naa ci ca ngoon indi Malick gi tey booba ñu ni loon waaye indi am ah, na nga indi ñun nag ñu daal di koy kii yel boobu kër yi yaatu na ndeysaan ñu nga woon ci kër yi ñii 10 000 francs la ñu joxe lii 15 000 francs keroog barki démb am na ku fa ñëw bëgg fa terrain ñu ni ko boo amul vingt cinq millions doo ko fa ci extension bi kon histoire la bu nu waree te ñu ñoo abriti min ngee jege ah ngee jege ku ko wax ah am na loo loo ci war a donc mu fa la nekkoon kon donc Malika ak Cambérène ba Yoof ah, donc am na lu symboliser ci diine donc buñ fi ñëwee def ko fi dañ ko fee war a def dañ ko fee war a def ah donc lii ñu fi ñëwee nag tey keroog bi ngeen ñëwee barki démb fële ci bureau ba newoon naa leen lu ma mën daal naa ko ci def bi ngeen génnee laa woo le directeur général Oumar Ba bu grande muraille verte mu explique ko mu ne ma yéen da ngeen ma ko yéex a wax sinon gabion yëpp maa leen koy defaral man maa leen di commandal gabion yi indi samay agent ñu reboiser leen def naa ni vendredi la de mm. ba ma ko waxee mu ne ma oh waay waay waay docteur yow da maa teel a kii yéex a wax mais ba ma ko teeloon maa lay defaral lépp mm. mais nag eh, eh, déglu ma rek mm. démb laay toog ba si yàgg abbaasu woo ma bi ma woowee ma gis appel en absence ma woo ko mu ne ma noo ga yéen a reboiser Cambérène mm. man a waxoon naa ko DCD mu ne ma noo yoroon fii garab ah ñu ngi xool daal na leen koy indili quoi mm-hmm. ko en ma ne ma garab yi sotti na ma soxla ay kii daal ñu ne ma yow daal docteur loo soxla mën mm-hmm. leen bon comme passe pilote la mm. andi leen rek euh, cent defe naa jox na nu xam xaw ma cent cinquante donc mu koy indi lii nag c'est une phase pilote mais dama bëgg monsieur le maire defal Cambérène fépp garab def loon ko un programme communal de reboisement lii mooy départ bi tey reboiser toutes les artères de Cambérène fépp kër yi arbre fruitier yi euh, man moom engagé wu naa ne di école daal fii bu école tijjee incha dans le cadre de notre programme bois d'école naa leen ci boole comme ni ma ko defoon fii ci école bi dina leen ci jàppale reboiser ko xale yi ñu defal ci jardin potager formation lépp lu ngeen soxla dinañ ko def njariñu garab nag docteur wax na ko dootuma ci dellusi parce que bi ñuy jógee fii Malika laa jógee bi may jógee yàq naa ci jaww ji parce que carburant laa consommé monsieur le maire yor na oto ak oto yi fi daje yii ñu ne la litre gasoil boo lakk yóbbu nga 2 virgule 62 kilogrammes CO2 ci atmosphère gaz bi taan defe naa ne kër boo dugg fekk fi de tey moom la ñu toggee añ ak moom la ñu boo ci lakk. xam leen ni yéen a ngay yóbbu co bi ci atmosphère bi di ko yàq ñun ñëpp bokk nañ ci changement climatique waaye lu docteur wax léegi nee na garab moo koy lekk kon ñun la ñuy yóbbu tooke ji kii moo nu koy lekkal ba pare bu ko lekkee jox ñu oxygène bi ñuy nooy bu kii jeexee rek ñu dee kii bu amatul rek ni dootul amati ak être vivant kon donc kon monsieur le maire lii nga def yow yaa ngi jëmmal Cambérène mais yaa ngi rendre un euh, euh, euh, un service énorme à la nature parce que nag monsieur Aliou Ndoye ministre de l' environnement président la ko dénk le PSE vert ministre de l' environnement la ko dénk. léegi nag mu yaakaar leen ci yéen communes yi nga xam ni dañ leen a transférer comme compétence. kon lii ngeen def yéen a ngi bokk ci jëmmal PSE vert bi nga xam ne président de la république denk na ko Aliou Ndoye dina ko yëg nag euh, tëdd ci blaal tey. donc dinaa ko rendre compte li ngeen fi def yëpp ak li ñu def ah donc di leen wax ni daal kontaan lii. lii nga def man man nga ma ci jàppale man nga ci parce que tamit boo ko defee reboisement bi mu def nee naa jàppale na ma ci politique de reboisement te li ñu fi jëmbal lépp tamit na rendre compte mu bokk ci archive bi ministère de l'environnement jërë ngeen jëf ñu ngi leen di sant yéen ñëpp mënumaa jaar ku nekk ci turam daal waaye maire jox naa la ko nga wasaaleel ma ko kilifay Cambérène di góor di jigéen di mag di ndaw jërë ngeen jëf laay maxtaar jërëjëf ah waaw waaw kon nag euh, dañuy jox sang bi laalaay mu wax avant avant ñoo démarrer waaw maa ngi sant yàlla bu baax julli Seydina Limaam alayhi salaam ñaanal sunu xalifa Seydina Mouhamadou Mokhtar mu yàgg fi loolu te wér di ko ñaanal xalifa jamono yëpp di nuyu baax ak ziyaare monsieur le maire di ko ñaanal yàlla projet yàlla àggale ko te lu mu xat-xat rek yàlla may la ndam ci liggéey bi euh, damay wax ni euh, maa ngi nuyuwaat tamit balaa maa jàll kilifa yëpp di leen ziyaare bu baax nuyu baax sunu ndijaay di ko ziar ndax damay wax ne nijaayu Mansour nijaayu njaboot gi la di la ziar bu baax di nuyu monsieur le monsieur maire Mamour ak kilifa yëpp bàyyi ma kenn di ziare ñëpp li waa Samba ñu ngi béggee ñëpp di wax alhamdulilah rabbi alamin ndax sant moom ci la lépp xaj mais damay wax ni projet bi suñu projet projet Seydina Issa Rohou la maire boo xoolee géej gi yëpp amoon nay filaawo bu du kàmbayeen ba fépp te kenn benn jëmmal woon mi yonte Cambérène sunu sunu vision lenn la war doon muy vision bi yonte Yàlla saa moom ci dëkk bi te boo xoolee maire tey mën na la indil ay yonte Yàlla saa yëpp waxal la ko demoon na ba miin ko waaw ndax euh, damay wax ni moom mooy mooyal bët bi sori bi te dëkk bi di yon dëkk yonte Yàlla saa ku fi waaye def rek sa bopp ko defal day day lu solo nag nga defal ko dëkk bi yëpp defal ko àddina bi yëpp loo xam te ne tey boo ko def day day ci àddina bi yëpp kon nag defal nga ko ànd bi yëpp te tamit incha allah ay projet la te mu ngi si kanam euh, wóolu ak yaakaar jeunesse su Cambérène dala ko def am na bis yoo xam te ne tey bu fa egsi woon nga xam te ni jeunesse su Cambérène ñoo ko def kon nag euh, l'essentiel mooy gën a yokk liggéey bi rek te yaa ngi ci di gën a invité ndaw yi si si àndandoo ak lépp sama projet ren kase la mooy dëkk bi doon benn rek ñu àndandoo. mbëbëtu Seydina Issa Rouhou Laye ñu àggale ko man sama vision loolu kese la maam Seydou fu mu tegoon ñu continuer ko ak ay mbëbëtam ndax damay wax ni boo timmee armée yële boo xoolee ñu ëpp mbëbët dama armée ya ndax ku fa tëdd yóbbaale nga mbëbët te damay wax ni boobu dëkk bi di Seydina Issa Rouhou mu doon dëkku référence si mbay maire ba mu fi nekk amoon na lépp si àll si ci jamono boobu kon nag tey lu mu fi defaat rek yeggali mbëbëtam la waaw moom yontaali sa kon di sant ñëpp. di gërëm ñëpp di wax jeunesse bi Cambérène ñu gën a góorgóorlu si dëkk bi gën si taxawaay mu gën a rafet gën a dem sa kanam lépp lu fi def kenn ku ne maire nga li fi liggéey bu fi maire ñëwee bu fu nekkul maire nga yaa fa yaa fa nekkal Cambérène te ku fa nekkal Cambérène yaa fi nekkal meer may wax ni maire bi toog taxaw nii tey day kilifa Cambérène sëriñ bi lépp loo xam te si état jëm moom mii la sant ndax mooy mooy maire Cambérène kon ñu gën a ñaan yàlla yàlla gën la réussir sa liggéey dëkk bii nag boo may ndam bokkuñu ko ñun Cambérène kese mais da nga yor dëkk boo xam te ni laayeen yëpp ñoo ko bokk lépp lu fi am laayeen yëpp ñoom ñoo koy kii jullit ñëpp kon nag tey sa ndam ndamu laayeen yëpp la boo xoolee kek jàmmalaay ba mu amee yooyu laayeen yëpp a manifesté wu kon may wax ne la dëkk bi dëkku kër laayeenu Seydina Limaamu yëpp la dëkku dëkku jullit àddina bi yëpp la ndax capital la si Ndakaaru bi njëkk am capital Dakar capital diine mooy Cambérène kon nag dëkk dëkk bu ndaw bu la tegee mission la bu am solo li may ñaan saa borom mooy bis bu nuy demaat si maam Seydi mu doon mission bam te ak day mat sëkk maam Seydi décoré la ñëpp décoré la yàlla na yàlla defal kontaan nañu si ñëpp bégg nañu si Cambérène 2 bëgg nañ si kàmb ne ba salaamaaleykum wa rahmatulah barakaatu. waaw waaw waaw jërëjëf sang bi donc comme dañuy waaj a jox kàddu maire mais balaa ñuy jox kàddu maire rek comme ni ñu koy wax comme gan yi docteur ñu leen di jox yóbbante xam ni aussi tim boo leen ñëwee bay dem mën nañ leen wax kan mooy suñu maire. fii yaakaar naa ne livre sax jamono jii fii ñu toll li mu defagum mën nañ ko bind. képp ku dëkk Cambérène di sigi di xool lii fii monsieur Dune Pathé Mbengue def ak équipe livre mun nañ ko def bind def ko ci yàlla nag def na comme ni sama sang waxee ni dëkk bi dëkku Cambérène la dëkku Seydina Issa la dëkk la ba nga xam ne ñëpp ko bokk xam naa moo tax liggéey bi bëri ak def-def ki bëri moo tax ñoo ngi sant di la wax ni ñun nu nous avons une euh, rëccuwuñu ko parce que ba ñëpp taxawee sang yëpp taxaw ñëpp taxaw ni c'est un administrateur civil un préfet directeur des ONG et du partenariat au niveau de ministère de l'intérieur Cambérène ñëpp ni moo leen doy nañ dem jox ko tey jii ku romb ku ñëw kàddu gi benn la ku jël dalee naan alhamdulilah rëccu ñu lu tax ñu fal la ñii duñu ay como ay professeur d'université ñoo ko wër ay docteur en pharmacie ay DER ñi nga xam ne ay ñoo yor ressources humaines Dubaï ñëpp ñoo ko wër ànd ak moom jiital ko loolu bu amee donc résultat yi bu ñëwee fii dañ koy xam di gërëm ñi nga xam ne ñu ngi fi Cameroun maire ñi ñi nga xam ni politique la woon nekkuñu woon sa ginnaaw ñëpp sa ginnaaw boo waxee ñu ne da ngay liggéey moo tax dañoo daw si ñëw seen ginnaaw référence yaa ngi nii ñu ngi ñu taxaw ñëpp dañu ne fii lañ newoon nee lañ aw mais gis nañ Dune Pathé day liggéey ñëw nañ daw ànd nekk seen ginnaaw kooku la ñuy jox kàttu muy Dune Pathé Mbengue jërë ngeen jëf. jërëjëf jërëjëf euh, bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaam ala ashrafi al anbiyahi wal mursalin sayidina wa nabiyana muhammad sayidina imaam allahi al mahdi alayhi salaatu wasalaam euh, dañuy tàmbale suñu kàddu di sant yàlla bu baax di julli ci sangub sang euh, di nuyu di ziar xalifatul muslimin Mouhamadou Makhtar Laye euh, jaar ci suñu sang libaas laa laay nuyu mboolem kilifa yi Cambérène euh, Cambérène dëkku kilifa la góor dëkku diine la mais damay wax capitalu diine la ndax mboolem kër diine yi dañ fi am représentation fii ñu taxaw nii muy Cambérène 2 y une forte communauté de Saloum Saloum jokk ci suñu maam Cheikh Ibrahima Niass ñii jokk ci suñu waa waa Tiwaawan euh, daayira murit bi démb rek maa ngi nekkoon ak Matar ak ñoom ci safar gi di ñaan suñu borom lépp luñ ci ñaan rek yàlla ñu ko yàlla defal donc di santaat yàlla bu baax di gërëm kilifa yi nga xam ni ñoom ñoo nekk ci gox bi euh, suñu xarit suñu mag na Sow taxaw na fi léegi euh, jibal ay kàddu ay kàddu ngërëm ak sant ñun ñoo leen di delloo kàddu yooyu ndax macha allah heure bu commune bi taxawee jeunesse bi taxaw pour liggéey ñoom ñi ngi seen wet mhm. donc mooy profité ci occasion bi euh, di wax ñaari mbir band bi ay mots de remerciement la jëmale ko ci ñan suñu partenaires yi nga xam ni bi ñu amee xalaat bi dañ ci accompagner commune bi accompagner ci jeunesse su Cambérène ndax maa ngi seen sànq euh, euh, jeunes yi ñu def plateforme pour les jeunesses conscientes de Cambérène jigéen ñi na gox yi suba daje naa fekk ñoom euh, délégué de quartier yi pratiquement yi séq gox bi yëpp ñu ngi fi woon donc loolu yëpp tey dynamique la ba nga xam ni tey ñëw ngeen jëmmal ñu parce que bu ministère de l'environnement taxawee service à la communauté bu université Cheikh Anta Diop de Dakar taxaw ça veut dire que c'est l'état du Sénégal moom moo taxaw tey donc ñu leen sant bu baax góor Euh, vraiment nga transmettre ñu suñuy remerciement au nom euh, de Cambérène mm-hmm. mais au ministre Alioune Ndoye qui aussi euh, fils de Cambérène mais mon cher Dieng transmettez aussi nos salutations au doyen ñu ngi ñaan yàlla vraiment ñu collaborer ensemble Et vision bi ñu am ci Cambérène mooy une ville lumière mais une ville verte parce que ki nga xam ni moo sanc dëkk bi naa Limam bi mu sancee Ndingala Seydina Issa mi ñuy xam ni wax nañ ko sànq sanc fii Cambérène dafa nekkoon dëkku référence. bande de filao nee nañ bokk na ci acteur principaux yi nga xam ni. biñ koy def avant les indépendances ñoom ñoo taxaw facilité ko. loolu nag lu symbole la. symbole la ba nga xam ni donc ñun bu ñu inspiré woo ci moom. ñu war a fonk garab lañu. monsieur Dieng ñëw na ci njariñu garab dama ci jaaraat. mais ku xam garab xam ni mook nit ñoo ànd. problème bi mooy dañoo tëqale. nit ak garab alors que ñoom ñaar ñoo ànd. nit mënul dund sans garab mais garab aussi mënul dund sans nit donc interaction boobu loolu moom mooy tax humanité bi mën a am avenir parce que bu garab amatul ci kaw suuf rek boo moytuwul nit dootul dund ci kaw suuf ndax boo jëlee euh, espèce bii ñuy tuddee moringa mais vertu yu ci nekk kenn xamul nu mu toll waxuma ombre bi muy joxee mais vertu thérapeutique yi ak leneen ak leneen ñëw nga ci sànq diine ni mu diglee ku ku samp garab garab googu dem bay joxe ker wala di joxe ñam donc li ñu def tey action gënu ko am solo euh, may profito di lancer un appel à toute la population de Cambérène góor ak jigéen mag ak ndaw la jeunesse surtout lu mel nii nekk un début góor wax nga ko sànq dañ ñu woon tey lu mu xat-xat-xat dinañ def tout ba dërule activité bi ndax dañoo bëgg mu law ci biir Cambérène laalaay loolu transmettre ñu sang yëpp que li ñu bëgg ci Cambérène mooy Cambérène nekk une ville verte mmh. ndax loolu moom méngoog cosaanu dëkk bi mmh. su ko defee ñun ñëpp ñu ànd doon benn góor ak jigéen mag ak ndaw li ñu bëggal Cambérène ñu ñu def ko man nag ci sama appréciation si sama engagement boobu dama naan mmh. defuñu dara defaguñu dara na ñu poser ay acte rek parce que acte yooyu moo tax ñu fal ñu bu ñu jógee ci ay poser acte yu jëriñ euh, dëkk bi daanaka suñu présence ci commune bi amatul sens mhm. donc Libaas Cambérène moo ñu ñor ci loolu laa leen invité ñu boole doole yi jeunesse bi femme yi ñun ñëpp ñu créer les conditions mhm. d'une union mhm. solide union boobu la dënk dëkk bi noonu lañ ko sampe su ko defee lu ñu bëggal Cambérène mu am Dieng on te de faire de Cambérène une ville verte donc prochainement dina la convier ci yeneen activité docteur Gora aussi comme ni nga ko waxee sànq Cambérène sa dëkk la Malikaay Cambérène Cambérène ay Malika donc lépp lu ñu sëx am nañ yaakaar ni di nga ne suñu wet yàlla ñu yàlla mottalil suñu yéene maa ngi gërëm di sant nag ñëpp ñi ci jàpp commune bi gis nga staff bi monsieur le maire Mamour représenté bureau municipal bi les conseillers municipaux président Libas nga xam ni moom daanaka fu ne environnement rek moom moo koy doxal ñu ngi gërëm ci taxawaay boobu staffu commune bi yëpp di ñaan ñëpp jàpp ci Awa Gaye jigéen ñi Cambérène na nga leen sensibiliser davantage parce que jigéen aussi li mu mën ak jot gi mu am des fois pour yor kër gi des fois góor ñu duñ ko am les jeunes Alioune Aïda jàpp leen ci su ko defee li nga xam ni vision la bu yaatoo yaatu Cambérène une ville référence loolu yàlla def ko ci mbaaxu Baye Laye war may seet Seydina Issa Rouhou Laye jërëjëf